jërë ngeen jëf fajkat yi ci réew mi l'observateur nee nañu am nañu jaaxle gu rëy ci coronavirus beeg ni muy lawee ci réew mi bil yéene bi bi jàngoro bi duggee ci réew mi ak léegi bés bu yàlla sàkk waa ministère de la santé yëgle ay cas yees ci bëccëgug ñaar fukki fan ci weeru mars ñoo ngi woon ci ñeen fukki cas ak juróom-ñaar ci ëllëg sa ñu ne ñoo ngi ci juróom fukki cas ak juróom-benn bés ba ca topp ñu ne am nañu juróom-benn fukki cas ak juróom-ñaar noonee la ñu ko jàppee ba yegg ci téeméeri ak ñeent fi Sénégal tollu tembe ci coronavirus bi moo di téeméeri ak ñeent fukk ak ñaar ñu fexe ba faj ñaar fukki ak juróom-ñaar mu des téeméeri ak fukk ak juróom yoo xam ne seeni borom ñi ngi ci traitement docteur musa Seydi njiital service maladie infectieuse bu opital Fann ni ci biir l'observateur li war ku nekk jamono ji moo di def ci sa bopp ne li fi am lu ko raw mën na fi am maanaam sa préparé au pire ci xët mu njëkk Vox Populi professeur Moussa Seydi nañu fa fii ak fukki fan ak juróom confinement général mën na am ci réew mi mu di tëj askan wi ci seeni kër kenn bañ a tee génnati professeur Moussa Seydi bu yëf yi gën a yokk te amuñu takk bu wér ci fan la ñu mën a teg suñu tànk lu dul di làmbatu mën nañoo jural musiba mu li ñu naan cas communautaire mu ne mooy li war a jaaxal ñëpp la tribune ñu professeur Moussa Seydi nee na bu ñu moytuwul ci confinement total ci la ñu jëm ngir wàññi jàngoro jekk ni muy lawee ci senegal jàngoro joojee di coronavirus bi la le quotidien xëy na dañu xamale ma ngay dellu gannaaw bu baax a baax ci diwaanu Touba ne ci juróom-ñaari fan yu ñu génn dégg ñu fa beneen cas bu bees am na fa juróom yu ñu faj ba ñu wér fukk ak ñeent ñu fay traité am na fay beneenu famille bu ñu fa quarantaine oon maanaam berleen mujj nañu leen a libéré ca Touba googee suur soi ma ngi ñaari ngénte yu fa takk dere jàpp ñu doon ngénte ak ñeent ci seeni invité yóbbu boobu Sud Quotidien xëy ñu yóbbu ba assemblée nationale wax ñu ne président Macky Sall actionné na assemblée nationale projet de loi bi koy may mu mën a gouverner ko ci ordonnance projet de loi ba ma ngay tegee ca taabali Moustapha Niass mi jiite assemblée nationale bi fii ki waxtu député yi war nañu ca sëgg càmbar ko mu war doon ci teewaayu ministre de la justice maître Malick Sall projet de loi ba journal Sud di ñu xamal ne ñeenti article moo ca nekk li ñëppi bay daje ci assemblée nationale président national di Macky Sall président bu réewum Chine ñoo nekk ci xët mu njëkk soleil national moyenne yu réy te am doole moom la journal bi nañu moom la réewum Chine génnee jox ko Sénégal ngir jàppale ko ko ci xeex bi muy xeexee coronavirus bi grand place dañu isinub ciment bii di Sococim ñoom it bëgg ñoo des ginnaaw ci xeex bi jox nañu kilifay réew mi ñaari téeméeri million ak juróom fukk ngir jàppee ko ci xeex bi la sine milliards yu état bu Sénégal génne ngir jënd ci mën a maanaam i matériel de protection ca Malick am nay tailleur yu fa nekk yoo xam ne dañoo mujj di ñëw ay masque de protection di ko may dispensaire yeeg askan weeg takk der ya foofee enquête wax na ñuy ne ca Espagne ña fa amee coronavirus bi am na ci ñoom juróomi junne ak ñeenti téeméeri nit yoo xam ne ay fajkat lañu l'observateur xëy di ñu xamale ak waa di ndongo benn moodu moodu bu nekk ci Italie def na fa fanweeri at ak lu teg ci ngaay mex gi fa